yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi mbokki jullit yi ak wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ginnaaw nuyu ak ziar yi dellusiwaat nañ ci barab bi nga xamante ni lañ baaxoo ànd ak ci diiru weeru koor wi muy jumaay Cheikhul Xadim Cheikh Ahmadou Bamba ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma mu ngi ko fi taxawe day waxtaanu diine yu am solo yoo xamante di ciy faral di fego ak euh, gan yu fasante ko tey jii nag ñu daloon fi rabitul madarisul quran bi nga xamante ni moom la képp ku fi mës a toogal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba nga teg leen loxo jiital leen ci li nga xam mooy ndaw njàngum alxuraan loolu nag mu daayira Muxaddamatul Xidma di xeñtu jotaay yu mel noonu ak borom xam-xam yu mel noonu ba bi nga xam ne déglu nañu waxtaan wi ñëw fi nga xam ne fi la ñu ndogoo bi ndogoo bu noppi nag ñëw nañ bëgg a jooyal ay kaddu euh, xam naa délégation bu am solo la si Moussa Mbacke ak sëñ xaali jaxate ñoo jiite délégation boobu ànd ak délégation bu takkoo takku dañuy bàyyi ak sëñ xaali kaddu gi bu ko defee mu leeral ñi nga xam ñoom la àndal ba noppi wax ay kaddu jàngatam yi nga xamante ni lim fi gis ak en tant que borom xam-xam lim fi dégg ak li nga xam itam gis nañ ne Alxuraan lu mu gërëm la muy iftaar mu am solo lool bu waa Makka ak di ko def Tuubaa gii di ko def muy lu am solo lool sëñ xaali na ci ñëw incha allah kon sëñ xaali waa daal Moukhaddamatoul Khidma ñu ngi leen di dalal bu baax di leen tàttagal bu baax di am mbégte kontaan ci seen tew leen wax salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalibe yi di leen siyaare ci saxu ramadaanul mubaarak di leen balu xaq di leen baal xaq ñaan suñu borom mu boole ñu baal. di jiital ñaanal saaxibul fadila Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Muntaqa suñu borom yokk fanam aku wéram gën koo kattanal ba liggéeyu lislaam bi nekk ci loxoom mu yóbbu ko fu kaay njort yëpp te naanu koog moom ci barkeb sëriñ bi. di wax alhamdulilah rabbil aalamiina eh, di jaajëfal bu baax daairatu muxaddamatul xidma ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne musta dañ di ko taxawe ñu leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel ci turu rabitatul madaaris quraani fi senegal ak mbooloo mi nga xam ne lenn ci jëwriñ ñi ñu àndal teewal leen fii tey jataay yu am solo yoo xam ne képp ku nekk ci dëkk bi miin na ko nga xam ne bala ñoo ndogu la ñuy jëkk a màndal euh, ruux yi ci ay soññe ay fàttale ay waxtaani diine yu am solo yoo xam ne jaamia la ndax benn mawdon bu ci nekk rek baxs la boo xam ne borom labal na ci ay waxtu yu baree bari segg ko ba mu sell Euh, ku ko taatan boobu jéego moom danga koy jéggi ci lislaam loolu di lu am solo waaye su jéego boobu jàllee ñu ñëw ci ndogu li moom it muy beneen jéego boo xam ne jéego bu réy bu am solo la. ndax iftaaru saa'im yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf cee wax ay ngëneel yu baree bari yàlla na leen ci yàlla defal yëpp te defal ñu ko ci. Euh, waaye léeg-léeg day gën a ëpp solo. yaatal giñ koy yaatal lu bokkul ak borom xam-xam yeeg sax siyaat yi ñu xam ci dëkk bi ñëw ci penc mi mbaa yitte joo amoon ba waxtu jot waxtu dog dab la nga dugg ci jumaa ji julli fi ñëw dogu ci ci ci ci ànd akuk dal akuk tey loolu lu am solo la waaye mbooloo mi nga xam ne euh, dañoo xëy di liggéey yi amaana fañ war a jëm sori na lool. seen liggéey mayu leen ñu wàcc dem seen kër ca waxtu wa ñu waajalal leen barab yu mel nii waajal yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi mën a yaatu ndax loolu day xam nañ ne aajo joo xam ne moom euh, mëneesu koo dajal ndax jamono moo bindoo noonu dëkk bi di dëkk bi yëngatu kaay nit ñu bari sori seeni barab kon su waxtu wi jotee ñu xam ne barabu bi yërmande la boo xam ne ku fa dem danga mën a dog danga mën a julli waaye da nga mën a def sa waajtaay ba ba ba ngay waxtu waxtu ma nga àgg sa kër nga àgg fa ci lu doonatul genn yàkkamti loolu jëf ju am am solo la kon wax dëgg yàlla daayiratu muxaddamatul xidma ci turu rabita ak boroom xam-xam yi ci dëkk bi ñu ngi leen di sant bu baax ci taxawaay yi ndax li jëkk ci cant gi rek mooy barab bii nga xam ne benn la ci barabi suñ borom yi waaye it barabu sëriñ bi la mooy jumaa ju mag ji ci dëkk bi fi la jëmmi sëriñ bi ne mu laaj orma ju rëy rëy ak taxawaay yu jafe ndax ku nekk dafiy ñëw ku xam dafiy ñëw ku xamut dafiy ñëw ku sañ di fi ñëw ñëpp di fi ñëw eh, jëflante bi doon lu jafe waaye nag ku xam da nga xam ne ay gone yuñ yar jàngal leen ñuy ay boroomi ma nga xam ne lu ñuy wax ak yow ci ak dal lañ koy def lañ jàngoon ci alquran suñu borom wax ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko alaw kunta fazzan ghalisal qalbi lan faddu min gis nañu ne jë ñiy jëflante jàng nañ loolu te xam nañ ko ñaareel bi gone ak dañuy wax ndax jàng nañ naxju kon xam nañu ne bu baax xëy na ñi fi ñëw damay defe ne sax jàngoon nañ naxju ñu formé waat leen ca teg ca xam nañ bu baax a baax ni ñuy jëflante ak i teggin loolu it ñëpp amel nañ leen ci cant. di leen ci ñaanal tawféexi suñu borom ak ndimbalam di wax ne yàlla na yàgg lool te luñ ci def rek laq ci ngërëmal sëriñ bi te suñu borom yàggalal ñu fi suñu jëwriñ ju mag ji Cheikh Mouhamadul Mountakha ba mbooleem naal yi mu fekkoon way juram yu baax yi ak magam yu baax yi naal ko mu àggal leen yi mu naalal bopp mi yëpp mu àggale ko ba naalaat ndax moom ak yàggam njariñal lislaam la salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu